Amadou Ba la dernière marche loolu mooy turu téere bu yées bi nga xam ne journaliste écrivain bi ma Madiambal Diagne daal dina koy génnee mu doon téere boo xam ni mu ngi ko jagleel candidat benn Benno Bokk Yaakaar moom nag day dellu si waat ci parcours ki nga xam ne moo di ilimaanu jëwriñ nii sabab bi rek lenn la nekk naka nga xam ne xëy na am na sénégal yu ko xam bari nañu waaye am na ñoo xam ne dese nañ koo xam waaye bu ma amee occasion boobu ma def ni journaliste def ci ci réew yëpp ci àddina réew moo gis ay démocratie yu mag bu bu mel nii jotee journalistes si dañuy bind jéem a xamale candidats yi ji laaj réew mi ñooy kan lan mooy seen jaar-jaar ak lan mooy seen mébét loolu nag tey moom laa def ci Amadou Ba. ci boobule téere oto bi mu ngi dellu ci waat ci trajectoire professionnelle bu Amadou Ba ak itam ci carrière am livre bi mu ngi wone ba mu juddoo Grand Dakar ak dama fa màggee ak fa mu jàngee ak fa mu jaar nu mu nekkoon nag ay bokkam nu mu nekkoon nag ay waajuram nu mu nekkoon nag ay xaritam ay dëkkandoom ba mu duggee université nu mu fa nekkee. ba mu jógee université ba mu nekkee ENAM nu mu fa nekkee ba mu génnee ENAM di liggéey impôt nu mu fa nekk ak mu fa liggéey ak fu mu ak ay jaar-jaaram foofu yëpp ak lan la fa jot a def ci ay jéego ak yan responsabilité la fa am ak responsabilité yooyu bañ ko ko joxee lu mu ca def bi mu duggee ci gouvernement bi la mu fa jot a liggéey aussi wane nañ ko ci gouver ci livre bi ay jaar-jaaram. téere bi am na itam ay seede nit ñi nga xam ne xam nañu bu baax kii di Amadou Ba. Euh, am na ñu nga xam ne dañoo liggéeyoon ak moom am na ñi nga xam ne ay am ña nga xam ne ay xaritam lañu ay àndandoom lañu am ña nga xam dañu màggandoo ak moom indi nañ ci ku nekk ci ñoom ay témoignages. seen euh, kii seen kilifa di président de la république am na ay témoignages yu mu ci def Amadou Ba ci boppam am na ay témoignages yu def ci biir livre bi kon loolu lépp day indi. leeral ci askan wi. Amadou Ba la dernière marche doon na ñetteelu téere boo xam ni auteur bi publié na ko ci diirub ñeenti weer.